missile bi génnul dara xewul loolu yëpp dinañ ko ko laaj waral ko lu waral missile bi yàqu paan gars yi amuñu ko ko dépanne armée baa ngi lay nuyu. auzu billah bisimilah inna waal yàlla euh, Baye maa ngi lay nuyu di la ziare sama mbokk Salihina <laughs> ngi lay nuyu di nuyu monde entier di jiitool ci nuyoo bi suma papa suma Serigne Serigne Cheikh Kounta Ndiaye di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan. naka noonu di ko ñaanal suñu xalifa alaaj Njoogu Sarr du nuyu suma waa dëkk waa mbay la waa Louga waa euh, Saalum waa kulluhum rek waaw waa Bawol képp kuy bëgg Armé rek maa lay nuyu di la siyaare di nuyu suma xarit yi ñu may àndal ci mel ni ñoom Eumeu Tall ñoom Bébé Tazana ak Maram Joo ñoom Ndoy mbër yi ma nekkal fii ci secteur bi yëpp di nuyu waa suma waa écrit surtout waaw di nuyu suñu père père Faye Talla Diop ak alaaj Jire kuluhum suma grand daa daa sumaare ma koy sant bu baax di ko nuyu di ko gërëm di la nuyu jiili di nuyu képp kuy bëggee armée rek armée mu ngi lay jox loxo di la nuyu di la siyaare di ñaanal suma yaay yàlla na yàlla oyofal suuf ci kawam ci barke Seydina Muhammad misil bi yàqu na jéem nañoo dépanner daa jàpp na ci gars yi jàpp na ci ku jàpp na ci mais armée bi daal missile bi yàqu na. non missile baa ngi fi de gars yi dañ ko bëgg a nangu te du ma nangu loolu non duma nangu loolu. ñan ñoo bëgg a nangu missile bi. waaw ñu bëgg a doxal lu dul yoon rek. jur sax boo ko tëjee si boo ko tëjee wala nga yeew ko danga nga koy jox mu lekk. Mhm. waaw mais tey amaana armée bu toogee kenn gisu ko waaw bëgg maa man bëgg maa génnee si làmb ji laa bëgg laa bëgg a wax sax. ah li ngay def kan moo lay génnee ci làmb yow njabootu làmb nga bokk. si niñ niñ bëgg a doxaleeg man. Mhm. yàlla xam ne loolu mooy tànk génne la ci làmb ji man damaa fayat suma làmb ba egg si fii. Mhm. mais diggante deux ans dëggal quatre ans yii nii nii nii nii. Mhm. dañ maa bëgg a génnee ci làmb quoi. ñan ñoo la bëgg a génnee ci làmb promoteur ménageur supporter walla mbër ci boppam. non man mbër mënumaa génne ci làmb supporter aussi noonu manager xanaa damay gën a jàppale. Hmm. promoteur laay wax. waaw. te jarul ñuy yaatal quoi du promoteur yëpp wax dëgg yàlla. Hmm. promoteur yi ma mës a bëreel sama douze combats amul kenn ku nga xam ne tey dudul du di la sant Pape du Fall laaj moo ma njëkk a tëgg sama àdduna. Hmm. mais musuma koo bëreel combat bu passé un mois. bëreel naa ko ay cinq wala six combats. ay Assane Ndiaye ak ñoo ñëpp dama leen sant ay nu mu tuddati jéeg kaañ ji. musuma ci am ak kenn problème. mais fan yii nii nii nii nii nii nii dama armée day am combat toog benn un an du bëre. ñu koy la day day pare pare pare ba mujj découragé loolu moo jeex. lan moo waral loolu lan moo waral préparer préparer ba da ngay mujjee découragé. parce que promoteur bi lay jox avance xanaa jàppal na la date. xamala la nit ki ngi ci contrat bul fàtte loolu. nit ku man nekkuma ci contrat kenn. ngor moo bàyyi woon ma dëggal sama bopp ne dinaa bëre nangu liñ ma waxoon liñ ma proposé. Hmm. man nangu suma staff nangu lenn amu ci. plus de un an. waaw léegi man ba kañ damay toog naan léegi damay xaaraat beneen un an waat. loolu ànduma ci parce que Prince dafa tëgg sa combat sa diggante yow ak la Feugeula la combat bi malgré fekk na ko États-Unis avance bi bi muy ñëw moom wax na ma sax ci làmmiñu boppam ma dégg d'accord na parce que tënkante na ak kàddu ak promoteur bi ba noppi mais yow jot ngaa jot avance. Euh, ba ba préparer sa combat ndax du yàgg tuuti kooru daaw invité woon naa leen fi seen jàkkaarloo yow Feugeula waaw xam nga boobu kàddoo ñu bàyyi woon muy tënkoon nañ am lu ñu waxante mm-hmm. ñu wax te mu wax te mm-hmm. fëgala nga njëkk a laaj micro mu naan man trois mois yi laa waxoon ak moom bu ko passé duma ko bëreel man xaar naa at ak lu topp ba léegi ba saison bi ubbi waatee ñëpp di jël date ba nii armée amul date waxuñu ko lu leer man man xaw ma benn buntu kër promoteur du ma woo du ma woo kenn du ma kar karre kenn néew ma kenn tëgg ma suma produit laa yor man li ma yor ragaluma ko kenn du ma tëgg ku mu neex boo ma man ñi may tëgg ñëpp sax man sama xaalisu bee laay fayee ko ma wax la loo loo bëggul loo bëgg loo hmm. sama xaalisu bee. Hmm. lu ci ëpp laay fayee ko ndax li may jël si ay bolok daanaka est-ce que di ma doole bu ma la dul doole xaalis hmm. waaw. ci wàllu mobilisation ñëpp xam nañ ko mais sa diggante ak promoteur bi Prince lan moo dox seen diggante laa bëgg a xam parce que ñiy seetaan bëgg nañoo xam lan moo waral armée jékki-jékki la ne bëree ak Prince lan moo ne seen diggante yéen ñaar. xam nga mm, daa am lu ñu euh, tënkoon. Mhm. muy wax mm, yaakaar ne ñaari gor bu ñu xasee waxante rek. Mhm. ku ci nekk daa war a jëf li nga waxante ndax tamit amuñu beneen métier bu dul làmb. Mhm. jiili sa micro bi bu nekkee da toog rek dem demeewul defi ji émission. Mm-hmm. kenn du la waxati jiili bu wasaare. non non leneen lan lay wax. Mm-hmm. man ba buñ ma gisatul may bëre samay nit gisatuñ ma may bëre mais dootuñu ma considérer comme mbër. te du ma faayit li may faayit ba yegg si fii ñu bëgg ma téye bëgg ma xaleloo di ma def même porte quoi loolu laa dul nangu laa la wax. Mm-hmm. Prince bu nekkee dafa bëgg sama combat danaan ma damaa bëgg su combat jour tel ma bëreel ko te sax man wax ji mooy man dama koo bëreelatul. lu tax foo teg loolu. billaahi bëreelatul. lu tax foo ko teg. dama koo bëreel dama ko bëggut a bëreel. xaalisam. ban xaalis. bi la jox. wala man ma koy topp xaalis. noo koy xaalis parce que dagg na njëg li xaw ma ak lu mu la mënti jox. dagg na njëg bi yow avance bi yaa ko jël wala sa staff. ñoo naa laa wax sax lii lii la daggee njëg dama la kaa rusa wax. lu tax. dama la kaa rusa wax. yow xam nga daa fekk daa mel ni ci situation. non situation. man dama judd euh, di tedd. kon moo tax nga jël avance Seydina Mouhamed non dëgg may déglu ma wax la ngor moo ñu fa bàyyi ku toog at waxu. Mhm. boo waxee rek am na loo ñor. niñ ma bëgg a bëlëf bëlëfee bëgg ma mel lu bëgg a génnee ci làmb moo dul yoon. Mhm. man jiil damaa fayat suma carrière. man bi may jóg fii koñ bi musul am bër. fii maa fi njëkk a takk ngemb dugg esaat am na ñoo xam bu ñu duggee esaat. Hmm. toog tribune esaat man man maa tax. ñu bëgg ma ànd ak man ci loolu. Hmm. musu li ma mën naan li ma leen li li ma leen reeloo moo leen mënu ma sax muur na. lim indil nga ko benn nekk. ca jamonoy mbapat laa lay wax fu ne jël naa fa drapeau indi. fu nekk foo xalaat. Hmm. te boobu la gënoon a metti fuuf. may ànd ak ñoom. ba léegi nii mais benn instant nga bëgg a toog yow benn quatre ans bu nga xam ni ah. say combat ay ay wax lay doon négocier ba sama combat bu mujj bii ni ma ko ñàkkee noonu lu ma metti la xanaa moo ñu bëri prêté wuñ ci attention. Hmm. est que xam nga ni prince moo ma joxoon avance ne ma da ngay te caat téye ma un an yu nga xam bëréew ma woon comme nii woon. Hmm. ma mujj siisu bàyyi mujj Luc Nicolaï fekk joxoon na tamit dumbul avance mu daw ah benn un foofu mu nekk deux ans ma mujj man affaire yi xaw ma soof ñu caat fekk moom caat mu ngi continuer di préparer. Mm. ñu ni ko léegi jëlal euh, léegi Luc Nicolaï ne ma yàgg armé laa bëgg ma ni garaawul ma ñëw rek man jël noonu. Mm. yàq suma lamb dem. Mm. loolu loolu moo ma dul dalati ci àdduna. est-ce que du affaire xale ak ñàkk staff bu baax parce que yaakaar naa ne mbër bu am staff balaa ngay dugg ci contrat jàmbur wala nga koy liir woon ngeen a xam kañ la combat bi jëm date bi ci ban ñaata at ngeen koy bëree wala yu mel noonu moo lay jural diggante trois ans wala quatre ans ci xale bu toll ni yow sa ñaari combat sax mënuñu koo compter. man man man man man man onze combats yi ma bëre. Hmm. yàlla xam na ni gis nga comme li fi gars yi nekk fii. di ñoot di fii kii naan di ñoot di man amul si man. man gis nga man xam nga lan laa wax ñu may àndal. gis nga làmb xam nga lan laa ko jàppee. man dama ci investir bis bu ma waree fay dina ma fay te dafa dafa damaa toll foofu. fi mu toll nii lu ma mënatul fay gaw ma ma amati ko si ndax ndax at xaaruma fi. temps bi xaaruma samay morom ñu may ñu may commencé romb. bu dëgg rek neexee romb ñu ma ci. ci mbooloo romb ñu ci bëre romb ñu ci ay victoire mais maanaam ñu lay romb ci compétition. waaw kay yow sa compétition léegi da nga koy lijjanti. Hmm. mel ni benn benn xale boobu. Hmm. waaw loolu man léegi te te du ci man. man bu ma sañoon man lépp lu ma wax ak nit ki muy gor comme man rek da koy def. Hmm. mais benn nit bëgg laa bëgg a bëgg bëgg a bouleverser sa àdduna. xam nga. tout le temps di la def benn affaire bi man presque bëggatuma mu tëgg ma ci àdduna. barki alxuraan jafe-jafe bu ma nekkee moom ma ko teg. boo bëggee dégg-dëgg nekkuma si jafe-jafe gaa sax mais nekk naa si jafe-jafe bu nga xam ne tey ku bëggoon tëgg armée ah armée am na combat. Mhm. loolu ngay wax. diggante moom fëgg la moom la ñëpp di wax léegi da ngay tàllal loxo yeneen promoteurs yi wala wala dafa am yeneen promoteur yoo xamante ne ñu ngi lay démarrer. xam nga wax ji lan la. Mhm. man dama fee nekkul di raay raayal. Mhm. ñi waraan daan tëgg. nañ ma tëgg. kan ak kan la yeneen man promoteur yëpp man ñëpp jaam laa ak ñoom ku bëggoon sama combat man décision méttiwul. yàlla xam ne ne asaalawuma sama bopp nag. amul promoteur bu may tëgg te doo kontaan. amul. dëgg la sax njëkkante bu metti moo tax sax doo dugg ci loo xamul. waaw mais mu ñëw nga ne ah kii kat décevoir na ma non non da ngay bég au contraire. Hmm. da koy yàkkamtee tëggaat. ndax dama lay jaayal ticket ba mu saf. su ma kenn jàppalewul sax ci ticket ma yëkkati liñ ma fay jëndee ko ticket ndax loolu laa tamu loolu laa jógee. ba léegi maa ngi ci voie boobu. waaw kon man man man mu demee nii bàyyi ji. war ngaa mën a am ñaari combat ci saison bi gaan gaa li nga wax parce que l'homme des grands événements bu ñu ko waxee xel day dem ci sëñ Fallou Luc Nicolas mu ngi ñëw ci làmb am na ay affiches yoo xamante ne mu ngi koy waajal lu ci mel ni combat Modou Lo ak Ama Baldé le vingt cinq décembre actuellement ni kon war nga mën a am ñaari combat le vingt cinq décembre boo ko ci tàllalee loxo nga cee bëre. man man moom comme li ma lay wax rek. Hmm. gis nga. promoteur bu bëgg. Hmm. tëgg armé ku bëggul. Hmm. baax na mais len laa mën a wax. Hmm. Prince man maa ko bëri la tul sama àdduna. leer na loolu moom loolu moom. na leer man ma man man maa man maa jël sama décision boobu. waxtaan waxtaanu ma seeg Samba waxtaanu ma seeg Demba mais man li may dund man maa ko xam. gis nga tey say nit tout le temps dañ may envoyé am na message yoo xam ne dama koy lire du mën a tontu. mbër lan la nu mu nii mais doo amati loo wax. mais maa ngi sant nag daa bu baax daa sumaare. moo ma woo de. non billaay wallaay moom moo moo la woo. mais xoolal yenn saa ma du du la nabu de ma découragé. Hmm. bu bëgg a bàyyi. Hmm. mu gëtal ma non bu metti rek nga bàyyi. Hmm. jógal nga nekkaat si mais boo xamee armée démb xam ko tey xam ni bu découragé wul en cent pour cent tamit commencé woon naa ko de. Ah, ñu dem ci làmb de ñu ngi ñëw parce que armée bari na affiche yoo xamante ni war nga koo mën a bëree parce que gis nañ bërki démb ku mel ne retour Zos ñu ngi koy wutal adversaire Diène Kairé dégg naa mu ngi ci diggante bi nee na nees la bëgg grand contre petit nag comme dafa xew ci làmb Issa yi am na combat moom jë Issa yi tamit dellu si waat na ci làmb am na combat tey bu ñu la doon jox Zos di nga nangu pour bëre ak moom wala koy ñaan ndimbal nag non Zos moom fi mu toll nii VIP la. jos jos jos man. Ah. man man ma la wax. Euh, non jiili. borom soos soosaat dóor dóoraat. jiili jiili jiili man dama dama dama dama dama dama dama dama marqué sama empreinte man man déggool ma la wax. Hmm. kudul dul sax sama bët weesu na loolu man damaa pare pour palmarès man nekkuma si làmb daw war a ñëwaat déedéet man maa ngi ci làmb. waxuñu loolu ma ne Zos bu ñu la bëggoon sa combat yow ak Zos mais ku dul Zos waxuma ko Zos man maa tudd Zos te dinaa la tuddalaat yeneen mbër. yàlla mi ma tiim xam na ni bu dee pour man rek. pare naa bu yàgg bu la neexoon yow tëggu ko yow. yow ak Zos. barki Seydina Mohamed doomu benn baraag bi ngay waxal man bëgguma de benn baraag moo bëgg. da duggoon Thiès daan. Euh, assurance wala ambulance mm. euh, Modou Anta bërki démb bëri naa jën kayre am lu ci xew bu buñ la doon démarché yaa ngi moo daan bëgg amul benn problème man déggoo li ma la man sama jëm bopp moo man la waaw. wala yaa fëgg la ah. la bëriwul fëgg la mu nga états tëdd. gis nga man man man mbër yi bëri laay waxal fi mu toll nii bu bu dëgg rek neexee. ji maag euh, nu mu tuddati. Anta Modou la làmb bu neex la. duggoon naa fa def fa affaire bëgg faa delluwaat defaat fa affaire aussi. Hmm. wala feneen rek. ci booyu tàng yow pourquoi mënoo maa xoolal ci booyu. ñan ñooy booyu tàng yi voilà am na lu ne sa xel. di nga wax demal naa booy ma toll génération mais pourquoi wala ñoom daa am lu ñu ma devancer. ñan la. man xoolal booy ma toll génération. ñi nga yëpp am nañ combat ñan la. non non non bëri nañ. limal ma ñett non du ma la limal kenn. non <laughs> yii gaaw ci waaye wax ma gox buñ dëkk ma ma limal la. ñëpp ma bàyyi ma kenn. waxal ma gox yi ñu dëkk. yow kon xamoo làmb ji li ah, yow. yow dama ko bëgg gox bi yow yow yow professeur man <laughs> <laughs> ma def ko du ma ko def. yow yow yow. Eh, armé xamoo ñu mu tollal génération wala fi mu toll nii tey nga boo sa xaalis yi a fay yow kon yow ay ay jos nga may jox ay kii ñooñu ñooñu ñooñu dañoo magal. c'est-à-dire da nga gëj a bëre. ñi lay seetaan mënuñoo xam non da nga gëj a bëre sa diggante yàgg euh, nu mu tuddati. caat caat booy bambara ba léegi loolu est deful trois ans. déedéet. de daaw la daaw rek lañ bërewul ñëpp kenn daaw ñu fi bëre dañ ko sant yàlla tuutee bëre. Hmm. daaw rek lañ bërewul mais daaw jeeg man oh oh ba ana balance nu ma ko mën a waxee. combat bi sa diggante yaag caatu booy bambara. da ngay xool wàccaay bi kañ nga jëloon avance combat bi ci lan la toll. ak yan situation nga ko bëre ba léegi loolu mooy. moo lay wan ni quatre ans bëri nga ko xanaa benn combat nga ci ci xale. benn combat xaw ma deux. combat quatre wax benn combat nga ci bëre sa diggante ak caatu booy bambara. ku doon bëre benn lamb waaye dinaa lu dul denc. doon bëre benn année ay quatre combats. Ah, sama début carrière la ay quatre combats. man promoteur yu gaaw yooyu laay wër. vite fait amul sax du doo sax xam. day ñëw tëgg la vite fait waxante la def ko. gis nga gor day sàmm kàddoom. nit ki loo mënul bu ci dugg. man ñu ngi may bëgg a toroxal. barki yàlla ndax kenn yoruma man maa yor sama bop lu ma amul fee laay toog maxu muñ ko. xam ni loolu la ma yàlla séddee. mais tey ku nga xam ne yaa yoroon sa bopp yor waa nekk soutien de famille. yu mm. bëri war la. Mm. ñu téye bëgg laa def benn xale bu nga xam ne tey fi mu toll yaa ma gën a xam. Mm. jërëjëf am na ñoo xam ma sama mën may xeebee barki yàlla. en tout cas daal sa neexul daal. billaahi dañ maa dañ maa tooñ li ma gën a metti mu naan ay damay plainte. <laughs> presse moo ni damay plainte. loo ko def moom lay plainte bind jël STM bind naan maa ne bëreelatuma ko. xoolal bëre man maa ko bàyyee bëreel ci àddina ban contrat ban contrat bu ma signé wala bu sama manager signé amul. Hmm. amul li ñu waxante au contraire moom moo ci deful dara moom man maa ko war a topp dara sax ndax man man moom damaa dugal ci coono. xam nga coono bi mooy lan mu jox la combat yow nga nekk ci di préparer jël sa moyen yi nga jotoon dese yëpp def si lam la wax amul nga muñ ne ah ndogalu yàlla la nga débrouiller waat jaay say matériel jaay say jur laay wax say xarit yëkkati seeni moyen nga defaat mu essegaat léegi yow nga essuyer carrément nga muy taxaw naan ay dama lay bul tax ma wax la lim ma jox rek ngay rus. <laughs> lim la jox. non loolu moo koy samay. lim la jox laa bëgg nga xam. su ma koy samay fans xam naa lim la jox. mais yow laa bëgg nga wax lim la jox. loolu loolu bu ma bettoon sax ma may ko ko. su ma bettoon ne ma lii laa soxla ma may ko ko. lan moo tax nga jël ko ko. waaw mais déggoo loolu du pour dara loolu pour pour wane ne bëgg naa combat diw ak diw la pour wane ne kii day tëgg loolu dogalee njëg moom ñëpp fii moom yaakaar naa. mu kum ci mën di doon mbër mu ci mbër mbër mu mag boo fi gis dañ lay dogale njëkk ba avance génn maanaam wa euh, luñ fi fekk la hmm. mais tey bu doon ne tey daa yëkkati avance kat ne a ah, mbër mi kat am hmm. wala tey mu sax am date man amul problème hmm. bu amee date rek ne ma ne woon ah jour tel di nga ko bëre mais damay dem liggéey ji xaaruma avance bi léegi pour ma xam mooy sa diggante ak caatu booy bambara à peu près ci kase bi nga bëri woon ñaata la toll. barki yàlla fàtte naa ko. juste moom na 3 millions. ëpp na ko moom. ëpp na 3 millions. waaw sa diggante ak euh, fëgg la bi nga koy jël kase bi fi mu toll mat na 3 millions. matu ko. matu 3 millions. non ñu dagg njëg dagg njëg bi li ñu la jox mat na 200000. est-ce dama la laaj est-ce que tombé aussi net. <laughs> tombé na ci net. waaw. kon daanaka mën naa ne dëgg njëg bi deux cent mille la nga jox. Eh, yow wax loo nga ma rek sax deux cent mille la ma jox waaw. nga jël deux cent mille franc. waaw jël deux cent mille franc mu war la jural actuellement un an ak lu teg est-ce que jotul armée. daa xorewul rek moom. Hmm. man xam nga loolu loolu da dogalewu njëg sax mais daa gorewul wax ji loolu la man li may wax ragaluma ko. Hmm. te lijjantiwuma ko aussi. su gore woon. dina xool bu baax li muy def li muy wax ak li muy def ak li muy estheti man tooñu ma ko gisuñu ma may wax gisuñu ma may kii. maa ngi toog di muñ depuis boobu. man sama moyen yi ma amoon yëpp def naa ko ci combat bi te apporter lu ma dara man ci boppam man maa bëggatul li ma daloon laay bañ mu dalaat ma maa bëggatul a bëre combat bi. léegi bu la beneen promoteur xool ah, seet si woon jox la beneen avant deux cent mille yooyu nga ko yoreloon nee nga jox na la deux cent mille da nga ko koy delloowaat. mën naa ko koo saraxaat ndax man man man moom moo ma tooñ ndax man tey. Hmm. man li ma waxante moom defu ci dara. bu ko defoon billaahi wallaahi taala kenn du ñu dégg. Hmm. mais dedul benn yoon xam nga lii man man. lan ngeen waxante woon sànq ba léegi yaay naan li ñu waxante woon defu ci dara lan ngeen waxante woon yéen ñaar. jii xam nga damaa waxtaan ak sumay mag. xam nga ñun ma am na yoo xam jarul nga si développé bàyyil noonu yow suma ma nit nga. ñi may seetaan sax. amaana dinañ xam ni kii ni muy waxee melul nii. mais xam nga tey munoo nekk ak say kilifa ñu wax la ba pare nga teggi ko. Mhm. mer naa sax ba wax fi yu nga xam ne sax man man waruma ko wax sax. Mhm. mais man noonu laa mel bu ma si paree pare aussi. Mhm. man moom lu nekk fii dama koy génnee su ma si paree pare naa si. man taaliba Serigne Saliou laa duma ma jàpp dara. waaw mais moom bu yàlla rek bu li ma bëgg moom. Hmm. ñoom buñ ma ci fekk see. Hmm. mooy man Prince bàyyi naa ko bëreelatuma ko bu doon tëgg àdduna lu ci biir bu dee moom kase des barki Seydina Muhammad man maa doyal. ci hmm. man man man ma ñoom buñ ma nangoo déglu nañ ma dimbalee loolu te yàlla tax. ndax daf maa sonal. koy wax lii sa staff nga koy wax sama ma dimbalee leen te yàlla tax. man. dama ñoom munuñoo xam ne man damaa stressé wu non non. kon da nga bëgg sa staff bu ñu gisatee appel prince sax buñ ko jël. non nañ ko bàyyi man man damay supprimer numéro ma lépp barke Seydina Mohamed man kenn mësuma dégg may wax. kenn xamee ma loolu sax. Mm. man yar teggin lañ ma xamee ak kaf. di mm. boo ma fekkoon fii ci biir boo yi nii. Mm. doo comprendre sax. sama gars yi tamit noonu. man loolu lañ ma xamee. Mm-hmm. kaf ree ambiance jàmm salaam jeex na. lu ko amul pare naa ci loolu. bu ma xoolee ni sax xam ni yow man ak yow ñoo def dama lay classé. noonu la ma yàlla bindee. ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax waxtaan bi am na solo. waa di la kontaanee jiili yow suma nit nga dañoo bokk luñ mënul séddoo. billaahi. dëgg la ñëpp su nit lañ mais yow dama laa gën a man maanaam sama nit nga ci biir nit ñi. Hmm. waaw ndax da ngaa bëgg Serigne Saliou te ca man ma yëg ko man ma xam ko man mu nekk sama lépp billaay wallaay taalaay ma jàppee la loolu nga doon nit ku baax tamit waaw di sant suma grand bi daa billaay wallaay ndax nit ki tamit ki ko bëgg rek moo ko sonal daa amaana yu bari dama si dimbali waaw di ma ci xalaat di ma ci wax. Mm-hmm. chaque jour suñu réussir rek lay gis. loo wax mun la moo day metti de mais billaahi day baax mu ngi ci kanam. gëm leen jàpp leen. Mm-hmm. xoolal boo toogee entre entraîné woo sax day mer. tey xoolal bi ma jógee entraînement fajar gi nii daa kontaan. Mm. man damay xam bu nit ñi demee entraînement ba mu xam ni yëg ni dem nañ rek day kontaan mm. xam nga kooku amoo fayam. sama mag taala bàyyiwuma ci benn côté benn waaw moom mooy sama lépp moom moo may digal mooy moo may tere lépp moom la waaw xam nga waaw calki calki njaay xam nga gaay yi billaay wallaay taalaay kenn seetaanu ma su ma yi may jàppale nag moom taxul ñu may wax affaire nag métti na mais mooy loolu gaynde gaa ngi waajaat ak ay misilam te billaay wallaay dinaa def lu doy waar. xam nga lan laa bëgg la laa bëgg gars yi nañ ñëw porte yi ubbeeku na. Hmm. pour mu leer xam nga nekk ma fi di laam-laamal. Hmm. nañ indi avance bi rek man ma jéem a bëre si léegi. Hmm. ndax mbër moom bu bërewul kenn xamatul lan la. man damay bëri ji de maa ngi ci affaire yi di entraîner. di waajal na combat bu met laa bëgg bëggu ma sax ay combat yu nga xam dañ naan néeg naa dama bëgg combat boo xam dañ naan dañ dinañ ko rey. waa comme noonu comme noonu lañ ko bëggee. ma ñëw wanewaat sama bopp jërëjëf ok Baye <laughs> mbokk yi seetaan wasaare làmb armé la woon nee na missile bi nettoyé na ko ba pare set na jekk na mel na ni mu war a mel tiire rek moo ci des kon promoteur yi ñuy wax rek prince bu fekkee combat bi euh, problème la da cee am wala yu mel noonu armé sa rakk la te xale la et xale la boo xamante ne ñu topp ci ginnaawam dañoo bari wolof nag saa su ne li muy wax mooy réeroo amul.